di jàngee daaray Cheikh Abdou Dieng. salaamaaleykum wa rahmatulah. yéen waa Yaatal Mbindum Alxuraan maa ngi leen di nuyu di leen man la Seynabou Cissé maa ngi jàngee daaray Sëñ bi ni'mati rabbika bi majnuun